mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen ziar ginnaaw nag bi ñu leen nuyoo di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun file ci Dakar Media TV xanaa rek ñu yeggee leen xibaar bu metti bu tiis bi nga xam ne rek moom la ñuy jot léegi jëm rek ci acteur bilee di Ibrahima Mbaye Soppe Ibrahima Mbaye Soppe nag di acteur di it metteur en scène moom nag moo ñàkk rek soxna ma sile tey jile ci bésub ajjuma bi ci weeru septembre bi bi ñu ne ci atum 2023 mu nekk nag lu triste nekk nag tiis ci képp rekk koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci wàllum cinéma wala sax nga jot koo xam ndax nag moom mi leen di Ibrahima Mbaye Sopé ràññee nañ ko loolu ci yenn série yi nga xam ne rek jot na fee daw file ci Sénégal Euh, jot l'équipe rek de dakara Media TV ñu ngi koy euh, ñaanal rek soxna ma soosule rek yàlla suñu borom rek jéggal ko daal di koy xari àjjana te suuf rek sedd itam rek ci kawam ma mu nekkoon xibaar boo xam ne rek moom moo fi woon ñu daal leen koy yeggee file ci Dakar Media TV